diggante Pape doomu Cissé ak Birima Ndiaye bu TFM saxaar si jóg na jàmm jeex na fa démb ci suba la ko Birima porté plainte dikk ndax nee na xale bi da koy woo di ko saaga ak menacé de mort bu weesoo tëkkuwante yi ñu gis ci net bi Birima di tëkku baay ji gone gi di tëkku Birima plainte boobu waral policier yi jëli Pape Lo démb këram bi ñu ko dégloo ba pare la nibi, ci fàttali Birima moo njëkk génn di laaj ndax Cissé Lo wér na gannaaw ba mu defee sortie di xas responsable politique yi nekk ba Birima yokk si ni Lo bëggul maki foofu ndax du intérêt su boobaa day suulu ndax mënul woon lo président ñooñu ñëw def ko mu ne su dina ko jaaxal day dof doflu mais dina ko lijjanti te bu muñu fonto ñi muy xas ñoo ko gën fuuf doomu Lo Il ca ba tontu ko ba wis ko xamal ko ni dafa war a xam de du responsable APR bokkul ci parti bi mercenaire la dañu koy recruter fay ko mu ci plateau kaasal la xasal la say noon gone gi de mu tegal ko ci nañu xool li ngay amoo boutique di dawal Mercedes buy jar 65 millions sàcc bu mag nga mu tëjalee ko courtier nga da nga yóbbu nit ci mag yi ba pare toog kafe de Rome naan ko sama wàll li jaaxal ñépp nag mooy ndeyu mbili gi di Cissé kenn gënu ko bëri ay waaye dégguñu ko benn yoon mu tontu ay nag du yem ci boppu boroom